Ah? mais yëguma ko daf ma bett ah. bilaa walaay daf ma bett ah? non yëguma ko man après laa jékki-jékki rek gis li dugg man ni mu demee nii dimanche la de tey ñu ngi CNG Balla Gaye lañ fi convoqué mhm. ndax dernier face to face bi li nga xam te ni waxoon na ko ci digganteem ak waa CNG yi mhm. ci mbirum koppar mi mhm. tey ñëwul mais ma nuyu la ba pare nga nuyu ak ñu lay seetaan ñu waxtaan ak maa ngi nuyu mbokk internet yi ñuy wax ci kaw Balla Gaye 2 Balla Gaye 2 tey bu ñëwoon CNG amul fula te li muy woote dëggul ko. yow kii lu ko daan yow. billaahi lu tax loolu ko waa CNG convoqué mu ñëw rek amul fula. lu tax. kon li muy wax gëmu ko. muy lan lan la doon. nee na CNG ay sàcc lañ. waaw. mais c'est vrai dafa moo nekk moo boo xam te ni xam naa ni mu ko waxee moom moo neexul dégg rek. yow da ngay confirmer. damay confirmer li mu wax ndax depuis longtemps. Mhm. ñu ngi laaj fan la xaalis bi di dugg ba léegi mënuñu ñu wax fan la xaalis bu bëri di dugg. dëgg la jamono yi Alioune Sarr ba léegi. Alioune Sarr ba léegi fan la xaalis bi di dugg. fan la hmm. xaalis bi di dugg fan la xaalis bi di dugg ba léegi. dëgg la bu fekkoon sax dañ ci jàppale def social mbër mi nga xam ne dafa feebar sax ñu jël ko ci xaalis bi. Hmm. dagg jàppalee ko ko sax nga ne waaw. Hmm. bu fekkee mbër mu nekk ci ay torof torof wala mbër mu gaañu ci làmb wala dara. ci seen si xam nga kañ la am ak mbër bi mbër mu ci blessé fii ci arène nationale bi pare na ci. boo paree sax duñ la sax assurance ak yëpp boo paree ñoo ci damm fii ci arène nationale. dafa am certificat ci en charge. dëgg la am na ci benn booy CNG ñoo ko kombuke mu des accidenté hmm. ko kombuke saaka joor jaxaay dafa mujjee génn àdduna sax CNG moo ko doon convoqué mu doon ñëw mu doon ñëw yor def choc def choc fii génn ci àdduna génn ci àdduna loolu xanaa siwul waa léegi siiw déet waay ko war a ñoo ko war a jàlle fan la kaa bi mujj fenn fenn loolu de yéeme na moom billaahi wallaahi talaay fenn saaka joor dafa génn àdduna CNG ñoo ko convoqué woon ndax dafa bëre fii daan booy bi arbitre bi jox booy bi victoire mu ci xeex ak arbitre beeg coow ak ñu convoqué ko ne ko ñëwal nga wuy ci CNG mu war moto jógee Kër Massar Jaxaay di ñëw jëm ci CNG bi mu ñëwee fii ba ci EDK bi ci la def sopp yàlla na ko yàlla yërëm. Mhm. mu génn ci àdduna. ana taxawaayu CNG. gis nga nit ñi nañu bàyyi ay naxe wala mhm. leneen ak leneen lañ bëgg a dox ci xaalis mu bëri yi mhm. bëri làmb dafa metti jara dëgg la benn tàkkusaan ñu fay la ay millions yu bare bare bare bare bëri CNG bëgg ci jël teg seen bët du yoon amul benn mbër muy Balla gay 2 mu ci mës a fayeeku fii ci biir CNG bi 30 millions amut ah? waaw benn mbër bu mu amul mbër mu ci mës a fayeeku 30 millions biir CNG ah. waaw lan moo waral loolu dawal njëkk promoteur bi day wax ak mbër mi ca ginnaaw ñëw ne 30 millions laa fay Balla Gaye lu ci waay man kenn dara te duñ joxe kase normal de dañuy xaj kase bi xaajaat ko xaajaat ko dal di koy indi seen promoteur mom mom ménageur mhm. mom promoteur bi mhm. né li la fay Balla Gaye tek ci table ci mu jakkoro ak am ñu dag li ñi dag seen jeey mhm. buñ doon andi xaj bi yépp nak ko xaj seen mom par par day dag ba bu ba ñom ñoy mom yëfi la ah. lolo tax nga ni Balla Gaye bu ñëwoon dafa ñak fay dafa bu ñewon dafa ñak fay rek gis nga seen guerre bi ñuy guerre bu fekke deug la sa gain la li ngeen xaritoo la wala li nga wax ci logique nga ko teg ci logique pas ay xaritoo wala ay sama gaayan wala li mu mm-hmm. nekk sama gaayan wala déedéet mm-hmm. si nga bu nekkee ci cadre làmb rek mm-hmm. ñoom nañu xeex bu ñu xeex nañ ko xeex bu dëgg ci ñoom te ñu ànd booloo mbër nag daa la ko dafa bari jikko day soppeeku fi ne mën la poussé ci dara ba nga commencé see dugg ñu yollee ku ci nekk see xaw di la seetaan comme bu ko nañ ko na mbër yëpp def conférence de presse ñëwuñu Hmm. waaw alors que tey amoon nañu yaakaar ne dina ñëw ba déggoon nañu sax ci ki nga xam te moom moo di ci yenn xibaar yi fi yu fi jotoon sànq ñu ne giri Gris Bordeaux sax moom day teew tey déggoo li ma wax bu ñu convoqué Balla Gaye 2 ba Balla Gaye nar a wuyu si na mbër yëpp képp kuy takk ngem wax ma mbër mbër mu ndaw hmm. ba ci suuf na ñëpp takk ndax ñoom ñoo bokk benn xeex bi ñuy xeex hmm. benn xeex bi ñuy xeex ñoom ñoo ko bokk du Balla Gaye 2 kase Balla Gaye 2 dafa wax moo boo xam te nii mhm. peut être ñoom dañ ko jàppe ni dafa wax moo moo bu doy waar bu dérangé mhm. te nag du neex dëgg la dëgg kaani la bët boo ko ko pay mu toxoñ est-ce que mu sàcc sax garaaw noonu olof la ah. mu sàcc olof la mais nañu wax fa ñuy dugal xaalis bi dañuy dagg mbëri nañu wax fan lañ koy dugal làmb dafa metti da ngay waaj ay millions ànd ak mhm. say fere lépp entraîné ñëw daanu sax ñoo la liggéeyoo dëgg la booleeg ñuy dagg sa xaalis neexut dëgg la mbër yi ngay seen fii yëpp amul kenn koo xam te ni dina bëri ba bàyyi bëri nga fëgg ko ne ko ana loo yor ci làmb mu di yëkkati loxo ne la désolé dara ne la yoruma dara maa ngi nii ñaata mbër te à chaque fois ñu ay centaine de millions ana xaalis fan la dugg te ñoom bëri sax parfois dañ naan sax ñoom instant yi làmb méttiwul ci ñoom mais après làmb lay métti ci ñoom après làmb ba ba ba pare fay bor yi ah. gi mm. ñaan mm-hmm. may ma nangam may ma nangam ñu jàppale leen léegi bu ñu bëggee jëlal seen xaalis bi ñu jot a amagasine yow ñu ciy daggaay ñeenti million ak juróomi million hmm. mbër mu nekk nga dab ci ñaari million wala juróomi million doo ko yëg mais dafay metti ci ñoom wallaay dëgg la dafay metti ci ñoom te tey bu ko CNG dajale woon durant bi saison bi ak ni muy boo génnee koppar la xoolal mbër mu nekk dagg licence dix mille francs dix mille mbër yi bëri simple bi ku ci nekk dagg dagg dix mille wala cinq mille. loolu xaalis la nga dajale xaalis boobu yëpp. globalement li fi nguur waruñu ko woon taxaw tabaxal. wallaay dëgg la. xaalisu CNG la ñu war na génne tabaxal ci arène nationale te fii nii sax ñu war war na ci defoon ay bërëb sport yoo xam ne nii mhm. arène nationale bii. Mhm. xaalisu CNG lay génn muy juraat dara. dëgg la barki dem boo Ndiaye na ne créé woon nañ benn salle bi ñu fii. anamu fan la dugg anamu. nañ ko laajte gisoon nañ ko fii ay fleur de lan fi def décoré fleur yi décoré lii nga xam ne boo lan mooy taxawaayam ci làmb lan la mag rek lay ñëw lan la seen seede lamp des fois mu jég saay rek kamaj fay ñu naan taal leen ak nangam nangam écran mm. géant a tàkk eh, pour bis bu mag ñu ne gaab waaw dégguma de dégguma de vaar bis bu mag lay ñëw yu ndaw ndawaan bis bu mag rek lay ñëw loolu moom dëgg la mag rek lay ñëw te bu combat yu mag yi sax des fois lañ jël yenn yi dañuy mhm. golofé daw ne xaar nañu xool baar ndax kaaw macca bi dal na <laughs> kaaw macca ak ñang baar taaluñu baar mhm. dem ñu xool sambala ñëw ne ñuy bëgg gis buñ nag xelu sénégalais yi mhm. Mhm. xaalis yombul dara te buñ koy dugal lañ ñu ko wax depuis longtemps nag ñu ngi naan laaj fan la ñuy dugal suñu xaalis mhm. kenn mënuñu di génne argument dañu mhm. fii la ñuy dugal suñu koo ci gis mu yor kat katam di dawal ñii di noos fii ñii di soli jees neer ñii di def loolu dinañu liggéey nguur gi nag dafa changé réew mi changé nguur gu bees yi moom la ñuy alerte mu wax waa CNG fan la ñuy dugal suñu xaalis nañ mhm, ndax nee nañu mi ku ci jalgati ñu jàpp fii la ñuy xoolee nag dëgg comme nañ ne dañuy logique mm. lépp na ci logique lañ koy teg ci won ne ñu bëri fii la dugal seen xaalis chaque année mm. wala ñu ci ko social ci mbër nga xam dañoo feebar seen loxo jotul ginnaaw fan la walaay dëgg la ana xaalis bi ñëwul tey lan moo ci mën a fekk dara du ko ci fekk du am sanction du am sanction du am dara te de seen ba nguuram jeexee yàgg de gaa yi de loolu la ñu wax. parce que sëriñ Tuubaa <laughs> mandat bi jeex na bu yàgg yàgg yàgg yàgg. yow li ngay wax nii mbaa suba du ñu ànd war a dugg ñu téye la. waaw nañ ma téye yoruñu suma wërsëg. voilà dëgg la foo nekk liggéey jeex na bu yàgg. mais est-ce que tamit dañuy xaar nekkul dimanche bii di ñëw la xaar saison bi jeex parce que VIP décision yi ñu jël mooy dañuy xaar saison bi jeex ñu woote. waaw léegi nag comme ñuy woote ndax bari na ci ay règlement yoo xam dañ ko def ci làmb def demande d'explication aussi. voilà def seen i règlement. Mhm. waxtaanuñoo kenn. Mhm. defuñu kenn gis nga du demee noonu. Mhm. làmb comité la. maanaam communauté que ñi ñuy séntu vert bi am comité ñeneen ñi seen nguur gi am kay làmb la war a am ñu dajaloo ne ah ñu hmm. dañoo bëgg a sàng def benn nangam hmm. waxtaan ci xool nan la ñu mën a def ba trouver mbër yi ba xam seen arrangement la hmm. nan lañ mën a def ba kii ndax ñi ci nekk ñëpp làmb nag am ñoo xam ne dañuy dunde làmb dundaluñu làmb dundaluñu làmb dëgg la seen biir rek leen ñor seen poos wallaay dëgg la xooluñu ñu làmb faaye xooluñu làmb leen seen biir seen bopp rek leen ñor waaw mais làmb waxtaan làmb hmm. bari na coow nag waaye amut problème nañu waxtaan dañu hmm, lëmbal hmm, def table ronde table nan la ñu mën a gis ba làmb mën a jëmaat ca kanam gis nga bu doon tubaab ba ko yor barke suñu tubaab sport bi nekk na international gars yi dañ leen Tyson la ñu bëgg bu ñu waxtaanee ba trouver solution ba jóge fu ñu xëcc ci mel ni Bekay ba mu bëri wala ba léegi ana lan la sacrifice ci làmb ñoom dafa mos a ñëw teewee bi su làmb bu mag. ah wàcc ma xam ne dama wàcc Tyson. da ko dégg ci làmb da nga dox ba dégg Tyson wax waxu làmb. mais nag est ce que ba ñun nag Sénégalais yi. gis ay Tyson mu toog benn lu xam rek ñu ne nañ ko jox Tyson déedéet. nañ ko jox ñi nga xam ne dañuy dundal làmb mm-hmm. mais na Tyson est tamit dafa am plan de carrière parce que. sauvegarde ah, image am aussi tamit. plan de carrière garde image am te mënoo taxaw. yow kat boo yi nga liggéey ci mbir ba retraité ci te mënoo leen a taxaw. da nga liggéey ci mbir mbir mi defal la lu ne. Hmm. def la star. def la millionnaire. Hmm. def la lu baree baree bari nga ne mënoo ko taxaw mënoo ko sacrifier ci benn hmm. temps wala benn minute ngeen ne Tyson a ah, nangam du Tyson. koo d'accord seet keneen. koo d'accord bari na fi. ah bari na ñu def ci code ba ba ba kii bari na ci ñu bare bare bare bare bare ñoom ñu ngi dundal làmb gis nga waxuma pour ay kaaw Kaba Kanté wala dara hmm. mook zoo technique ñoom ñoo ko doon xëccoo bële passé waaw ku ci nekk ay millions frais hmm. campagne hmm. moo la waxee campagne ne wut di wër di kii campagne dafay conférence de presse di def nii di wut ñu leen waxal teewul boobu baag léegi chaque jour da nga gis mu ngemb andi mbër jàppale mbër di génne xaalisam di def di génne xaalisam di dugal ci làmb bu mbër amee combat boo ko seetsee mu génne la mu yor dërëm ak ñaar dërëmam jox la hmm. kooku war nañ ko mën a jox làmb ndax na làmb hmm. Moustapha Gueye hmm. ba bëree taxut mu bàyyi bëree dëgg la Mouhamed Ndaw Tyson kii nu mu tudd Yaxa Jóob Yékini taxul mu bàyyi dem na ay mbappatu Joal di def leneen ak leneen ak leneen te nit ko am bu mu ko yoree xam naa ne ñuy yàbbal teebeeg yooyu noonu dina ndax dafa am caractère am charisme mais nag bu nekk fara far faral promoteur yi am doole bàyyi promoteur yi néew doole. dëgg la buñ def nañ ko def ci yoon teg ko ci dëgg. teg ko ci logique. teg ko ci mm-hmm. logique. Mm-hmm. teg ko bañ a jaay dat bañ a def yeneen li xam ci CNG bi ak a bari du ma wax sax. jeex na ñu def ci code ba beneen. waaw jaajëfal naa la. jërëjëf borom fekkee TV. kenn <laughs> sama xarit bi. kenn du yow. Mm-hmm. bu fekkee ci keesu état la jëm. à ah, ci état la jëm. yaa ngi comprendre. est-ce ñu fay lempo l'impôt waaw est-ce que ñu koy fay. nga ni ko la l'impôt am xanaa ma gën a waaw est-ce que ñu ngi fay yooyu. waaw et cetera yaa ngi comprendre. Uh-huh. ñu leen lii. Uh-huh. ci keesu état la jël. Uh-huh. lamb secteur de développement la pour Sénégal. lu si parce que mbëri mag yi bu ñu amee combat. ku ne avantage muy courant bi. muy ndox mi SDE bi. ndox mi SDE bi emploi des jeunes bi. emploi des jeunes bi. waaw jaaykat yi jaaykat ñuy consommer. parce que mbër saa bu amee combat këram bëri ñoom Balla Gaye saa bu ñu amee combat seen kër hmm. chaque jour dañ dépassé ëpp cent cinquante mille par jour muy ceeb diwlin hmm. Hmm. mais loolu lépp ci état la lay delluwaat mais business boobu mu ngi avancé kon man dama naan gàcce galaama waa Alburax Alburax nga leen état gën a teg loxo tous les promoteurs bi fi nekk. Hmm. muy Makan Mbengue. di Fallou Ndiaye des production et cetera et cetera. Diouf hmm. production Mor. maa ngi koy nuyuwaale au nit ku baax la. nañ leen na leen état gën a subventionné. Hmm. ci côté. waxumala ci côté koom-koom mais ci côté sponsor. parce que ay port autonome de Dakar. waaw mooy produit yi yaay produit yi. produit yi waaw <laughs> maa ngi jégal si publicité yi. produit yi léegi léegi léegi Balla Gaye uh-huh. ñu nekkee. Mm-hmm. état jënd indi ci mm-hmm. a am avancement ci làmb xale yi léegi la na. wàññeeku moo taxal sport baax. Mm-hmm. ba ci américain yi boo xoolee. ay kickboxing. am na judo. am na li nga xamante ne mooy ay boxu am na am et cetera. parce que Amérique bi fa ay gang gang moo fa fa nekkoon ñu gis seen biir. Hmm. drogue bari ci xale yi. waaw reyante hmm. reyante. Hmm. léegi seen seen seen seen seen intelligence ñu créé ay compétition yoo xamante ne tey. boo amee doole doo agressé ji. dëgg la da mais gaa <laughs> mais loolu moo moo war suñu làmb ji. moo war léegi banditisme wàññeeku ci temps. kañ di dégg ay agression violence am ay jamono waaw boo xoolee. ay régions yi am yëpp ay villages yi am yëpp léegi entre xarit ak xarit ñooy bokk ay affaire rayante ci wala werante ci mm-hmm. mais en xale yaa ngi concentré ci làmb di am mm-hmm. ay combat di bëre mm-hmm. di am ñu yóbbu seen yaay yi kooku du tal dem sàcc du tal dem agressé ji kon nañ gën a assainir làmb Balla Gaye bu ñëwoon tey par exemple nee nga dafa voyagé mën na am mu voyagé. waaw mën na am man loolu laa mais kon mën nañu xaar deuxième convocation. waaw na nañu waat. noo gisee vidéo depuis démb ba tey Balla Gaye arrestation de Balla Gaye Balla Gaye dañ ko arrêté police jàpp na ko nangam. yaa ngi yaa ngi gis vidéo yi ni muy circulé alors que la. na euh, dañu ah. bàyyi di insulté doomu jàmbur dañu bàyyi di fenn. man baaxul nit lépp lay bind xamal li ngay bind. waaw ci mais yaa nga nekk de yow. mais mais man mais mais mais. mais moom du titre de. titre moom du bind moom day wax. mais ay Balla Gaye yàlla na leen peut arrêté ñoom ñu yéene Balla Gaye. arrêtation de Balla Gaye ma yëg ko man pour man Balla Gaye dafa def doon naka sul noonu. waaw diggante CNG lañ ko xool. yàlla na leen police arrêté. ñun ñu dimbali ci wax police. loolu waaw bañ fa génnee yàggu par bi démb boo jaay la da ngeen dañoo jooy ba sonn. yàlla indaas ñu la xool képp ku yéene Balla Gaye police yàlla nga dem police loolu kay loolu moom maa ko maa dama koy dogal. mais pour ñu xamul les faits pour nga revenir les faits lan la Balla Gaye def Balla Gaye dañ koo convoqué pour CNG ñu ne ah. dafa génne dana kàddu traité leen ay sàcc ngeen mm-hmm. loolu moo médecin dañu convoqué ko. ay kilifaam ñoo ko convoqué. Mhm. ay xaritu baayam ñoo ko convoqué. wallaay dëgg ñoom dañu di waxtaanal. ci jàmm ak salaam bu paree jox leen paasu Touba. ay <laughs> dem mu jigee combat am ki nga xam ne moom mooy. moom mooy tafaati ñaar lañ ko dagg si xaalis ba yooyu. non dagg bi dafa métti ay millions du caaxaan. yow tey sa 1000 francs su ma ko jëlee dagg xaw na amaana moo tax mu génne communication boobu noonu. non cri de cœur bi moom dafa wax jëmale même bu dee daf ko jëmale ci boppam dafa généraliser. généraliser d'une manière générale pour kaaxaaleel ñooñu. ñëpp ba lii fekk ko ci. làmb la ñoo àndu nag. Mhm. ñàkk ànd moo waral lii lépp. Mhm. promoteur yi ànduñu mbër yi ànduñu ah, rek am ñaari ñaari mhm. rek. waaw. grand promoteur jeune promoteur. jeune amateur grand amateur. Ah, Abou Abou <laughs> jërëjëf kontaan naa ci jërëjëf Abou